jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ni rek nañu koy topp ci site internet bi di Buzz 24 Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay fas na yéene amal ab tukki nemmeeku niki 3 jàpp 4 septembre bee ñu jëm fi nga xamante ni rek moom ca diwaan bu Chine mbir mu nu mel nag mi ngi ko daal di fësal ci ab communiqué ci jamono bi nga xamante ni rek doon nañ amal conseil ministre conseil des ministres niki démb ci àllarba ji mu nemmeeku boo xamante ni rek moom mi jiite jamono ji réew bi Sénégal nag fas yéene ko amal ngir teewee quatrième sommet bu forum coopération sino-africain nga xamante rek daañu ko amal ni ki 5 jàpp 6 septembre ci mbir mu nu mel nag mu ñeel agenda diplomatique rek moom chef de l'état bi nag daal dinay xam ne rek ci conseil des ministres que dina amal boobule tukki nemmeeku fi nga xamante rek moom mooy ci république populaire bu Chine ni ki 3 jàpp 4 septembre 2024 forum coopération sino-africain bi nga xamante ne rek ni ki 5 jàpp 6 septembre 2024 lañ ko fas yéene amal mbir mu nu mel nag ñu ngi ko daal di biiral rek ci ab communiqué bi nga xamante ne rek jot nañu ko publier après réunion hebdomadaire bi nga xamante ne rek gouvernement bi tàmm nañ di ko def jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar